building mooy ndaanaan mi fekk naa ko Gàmbi xale la boo xamante ne ndaanaan la ci wàllu lamb ndaysaan gis naa soq indi ko ànd ak nday ndaysaan ñoom ñooñu ay xale la ñoo xamante ni ñoom buñ demee Gàmbi ñooy bokk fi ñuy nekk ñooy bokk ci bërëb bi ñuy nekk moom building c'est un grand champion ndaysaan muy laal marigo bu Thiès marigot nekk ndaanaan moom ci làmb doon xale lamb Thiès ak Tiwaawoon am ci moom yaakaar arbitre bi sifle na building moo la woon ginnaaw marigo moom nga jàkkaar lool building am na lu of ci loxo yi of na ko ko ndaysaan building ak marigo ndaysaan building marigo ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ba tey dara xewagul marigot defagul dara building defagul dara building marigot building marigot Ndeysaan building Marigot building Marigot ñoom ñaar ba tay dara xewagul ñoo ngi leetoo building jiital tànk càmmoñ Marigot jiital tànk ndijoor ñoom ñaar am na ku ci bëgg a dem building moo ngemboo ngemb le ko daw na jëli ko Marigot xeex na building takk na ko lu mu naar door na ko ci suuf laa ilaha illallah building takk na ko yenu ba ci kaw dóor ci suuf marigot def ne erreur building rectifié ci biir combat bi daan ko jël bu amul benn werante building daan naan la ci làmb building daan naan la ci làmb eh building